fàttali mbindum la république son excellence ko jël euh, daan koy euh, euh, am nañ ko ak mbooleem fukki réew juróom benn yi nga xam ni ñoo bokk ci CEDEAO Sénégal di ci am rôle bu am importance commencé door liggéey bi je crois que loolu également lu yees ci Sénégal ñu jot ci instruction ferme yoo xam ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moo ñu ko jox pour ñu fexe ba xaar ci suñu tànk tubéy grandi li ñun mooy autorité administrative ba liggéey bi door départ bi xawoon na jafe parce que département bu nekk benn commission la woon gisoon ngeen nit ñi di ñëw di fanaan di ràng mu xaw a métti lool et chaque fois dama fa daan jaar naan leen tey leen def naan parce que déploiement booy booy lal mbir li wolof naan daal xëy xëy sotti foog nga def ci tekk tepp di wolof nee na également tepp mooy indi yurébi loolu na mais fii ñu toll nii am naa mbégte annoncé population yi que Euh, ci biir euh, dëkk bii nga xam mooy Thiès juróom-ñaari commission ñoo ngi fonctionné juróom-ñaar yooyu benn baa ngi ci fii ci espace jeune tapaloo préfecture ci yoonu yoonu yoonu jàkkaarloo RTS wala wetu euh, commandant de zone bi fu nekk beneen baa ngi ci sous préfecture Thiès nord fii ci wetu Jaxaaw am na beneen bu nekk ci sous préfecture Thiès sud maanaam ci yoonu Mbour bi boo weesoo stade bi am na beneen bu nekk ci cadre de tout petit bi nekk r am na ñaar yoo xam ne ñoo ngi nekk ci promenade ya Thiessois foofu jàkkaarloog CRPE maanaam foofu ñu defi ba ñuy défilé mais am na beneen boo xam ne également ñoo ngi ko teg ci base militaire bi boobu boo gisee ñu teg fa dafa am soldat yoo xam ne xam nga Sénégal am na rôle bu am solo bu muy def ci wàllu maintien de la paix yoo xam dañu waroon dem mission c' comme ay citoyen sénégalais ñu tegal leen commission boobu am nañ yaakaar ne ab diir sax tuuti bu soobee yàlla buñ ko demee danañ ko jëlee foofu parce que ñiy bind léegi euh, mat déployé ko également ci biir dëkk bi ñu juróom-ñaar commission yoo xam ñoo ngi fonctionner fii ci biir Thiès doyul dëgg la waaye ñoo ngi def un déploiement am nañ yaakaar ni yeneen ñuy xaar bu ñu ñëwee ci en tout cas kilifa ñoo koy fixé daan ci mën a def liggéey pour mën a mucc ay ba nit ñi am seen carte d'identité euh, nationale CEDEAO biométrique bi nga xam mooy bu yees bi mais également ñi maintenir seen euh, liste wala ñuy bind ci liste électorale mën a amaale en même temps carte électorale parce que innovation damay fàttali carte boobu day doon carte daal te doon carte d'électeur mais également bàyyi ñu li nga xam ne mooy gox goxaan yi nekk ci département fi mu temmee ma leen di wax euh, en dehors juróom-ñaar commission yooyu nga xam ñoo ngi ci biir dëkk Thiès am na fukki commission ak ñaar yoo xam ñoo ngi ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo bokk ci département yi c'est sous-préfet jiite bi xombal am na commission boo xam ne également bu mbaa ko fa moo ngi dox euh, pour am na commission boo xam moo ngi dox ci biir sous-préfecture ba la nekk mais boo jëlee ci arrondissement Kër Moussa boo demee Kër Moussa dem Kayar dem Fandène dem euh, Ndié euh, dem euh, dem Diender commission yaa nga fa boo ñëwee arrondissement Noto nga dem Noto Diobass wala nga dem Tasset commission yi installé nañ de ñoo ngi dox nga dem arrondissement Thiénaba muy Thiénaba muy Ndiéyène Sirakh muy Ngoundiane muy Toubacouta commission yaa ngi dox et di def également liggéey bu mucc ay départ bi dana xaw a metti tuuti. waaye liggéey comme ni ma koy waxee nànk-nànk la bu ñu organiser ku nekk xam ni lii liggéey la boo xam ni réew mee ko moom dëgg la ci ndondol état la teg ministre de l' intérieur bi la sécurité publique Abdoulaye Daouda Diallo diñ ci jox ay bi yàlla le gouverneur région kon nag loolu ñun ñoo ngi ciy xaar suñu tànk tubé li ñu bëgg rek mooy collaboration euh, population bi damay fàttali au delà des commissions yi nga xam ne fii fii la commission bi nekk am nay yoo xam ne incha allah ñooy dem ci biir population ñaar yi nga xam ñoo nekk espace ci lañ bokk bay nekk base ci la bokk bu yàlla defee jàmm euh, xam nga buñ ne euh, ñaari nekk promenade lay wax wala mu ne espace jeune buñ ne commission mobile ñoom danañ fexe bay dem ci université dem ci l'hôpital yi dem li nga xam ne fa la nit ñi nekk mais pour le moment daal li nga xam ne mooy appel bi may lancé woote bi may lancé mooy nit ñi organiser indi kayit nag day fàttali da nasional, indi sa carte d'identité nationale wala sa carte d'électeur ak copie ba bu fekkee yow yaa nga fa woon nga maintenir sans modification maanaam fa nga doon wootee maintenir la fa bu fekkee ne également da nga war a changer barab nga indaale certificat de résidence wala yu wane ne effectivement changé nga mais information yi da ca des mooy mbindu yu bees yi militaire yi nga xam ne également dañ jóge parce mais na nit ñi dem information bu ñu soxla bu ñu ñëwee ci préfecture bi wala ñu dem ci sous préfecture bi incha allah bi dana leen ko wax ñu jàpp ci ñu ñëpp xam ni metti woon na départ mais fii toll nii li nga xam ne am nañ ko us néew fas yéene ko yokk également ah comme je dis euh, déploiement bi déploiement progressif la maanaam nànk-nànk dañuy demee nga xam ñoo doon ñëw ci commission yi xam nañ ne départ doon na métti mais fii toll nii am na ci commission yoo xam bind ba téeméeri nit ak ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk bërki dem ci euh, case des députés bi dinañ ko téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñett démb di nga gis téeméer ak ñett téeméer ak fukk wala yu demee noonu sa amul àpp boo xam ne fii fixé nañ ko commission yi nee nañ ñu xëy liggéey 8 heures ba 18 heures jafe-jafe nag mënut a am moom na mais am solo rek mooy ñun tax xam nañ takk suñu tànk tubéy pour jàppale population yi département de Thiès liggéey bi nga xam ne président de la boo ko décidé ko de l'intérieur ko liggéey boobu mu mucc ay ba nga xam ne ñu tolloo ci euh, xayma ba département de Thiès ba nga féete ginnaaw bu fekkee ñu mënul jiitu ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu sant ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen massaw bu fekkee amoon na coono. ñu masoon nit ñi xéer gi la parce que souvent nit ñi ñoo doon def a buuxante di daw mais toujours dama leen doon xamal ni commission yi ñoo ngi fi déploiement bi dina yokk juróom-ñaar ñi nekk Thiès am na mais fas lañ yéene ñaan suñuy kilifa ñu yokkal ñu ko ba nga xam ne incha allah rabbi bu yàlla defee jàmm commission yi dinañ liggéey te ñëpp dinañ am seen kayit ci délai gaaw.